ma gis ngeen rek tey ñëw nañ euh, ñëw seet si suñu sœur ñëw teewal ko si bësën bi et tout ça je pense que loolu yëpp tey bu amee jikkoom la surtout et seede benn la ñëpp li ñuy wax yaru na tey na baax na te mën na feddali ko kóllëre surtout 2014 ba tey ñu ngi si 2022 su li amee moom moo tax xam nga yàlla tamit def ba ñun euh, ñu mën a moytu seytaane xam fu ñuy jaar suñu yaay tamit xam yoon bi mu ñuy tettee xam ni mu ñuy conseillé a dajale ay doomam ak lu mën Tata Ngoné pour ñu jeexal la yaakaar naa ne ñi nga xamante ne ñoo doon euh, critiquer seen petit gars yi la wala réponse la si ñoom tamit parce que am na ñaari éléments yoo xamante ne may nañ leen te yàggul dara dara critique yooyu moo tax xale yi baax mm. parce que àdduna boo ci nekkee da ngay bëgg critique ndaxte critique ñoom ñoo lay yokk jom mm. donc je pense que les critiques ont été vraiment critique bu baax pour que xale yi xam seen tànk fi ñu koy teg tey jii lii rek la ñu bëggoon ci ñoom ñu màgg tekki ba ñun leen di maye sëy ñu góor ñi takk ay jabar donc nii rek la nar a continuer si sobee suñu borom yàlla musal leen si cat ak bët yàlla feddali lépp mottali lépp ba lépp lu ñu ci bëgg rek yàlla suñu borom def kontaan naa trop tu es toute mignonne macha allah merci a moom nit ku baax nit ku baax comme ñun gis ngeen lu ñuy àndee rek complicité bi ñu am depuis bañ nekkee xale ba tey mu doon nit ku baax franchement xam nga changé wul benn yoon te ñun loolu lañ xam ay xale bu ngeen di ànd da ngeen yor benn jikko du dëgg moo tax tey ji suñu ànd dëgër ba ñu ànd ba tey ji ñu maye ma même pas une semaine moom tamit dimanche lañ ma maye moom tamit dimanche lañ ko maye dimanche bi di ñëw yàlla ci biir <laughs> dox. kon kon yaakaar naa ne tey tey tey tey mën nañoo jàpp ni sigil ngeen Tata Ngoné ndax lii la doon xaar ci yéen. ndax yaay bu ci nekk. Mm-hmm. da ñaan yàlla nga yar say doom ba ñu màgg. Mm-hmm. nga teg leen ci yeneen loxo yu wóor. Mm-hmm. parce que jigéen moom dëkkul dëkkul fenn du dëgg. sant nañ ko di ko gërëm ñun amuñu amuñu fayam gis nañ ko fu ñuy dem day am ànd ak ñun di ñu tette ba tey te pourtant ñun ñii am nañ jëkkër mën nañ doxal suñu bopp mais ba tey c'est une mère protectrice gis ngeen ko fu muy dem ñooy ànd ak moom rek macha allah moo koy félicité bu baax moom mu nekk euh, suñu sista boo xamante ni baax na macha allah te ni mu meloon démb noonu la mel tey dee la musul changé ni mu meloon ak ñun démb noonu la mel tey ñu koy ñaanal euh, sëyam bi yàlla may ko si njaboot bu baax. ayca mbëggee di la bàyyi nga nuyu mbokk yaakaar naa ne tey mbégte la nga daal di jàkkaarloo ne bokkoon na ci yow tey lan ngay yëg kontaan. ah kontaan mm. sama xale yi moom seen yaram yi dafa tàng donc euh, barki dem moo Ndiaye ak euh, ndaxte malheureusement j'étais pas là j'étais en voyage. Mm-hmm. barki démb laa ñëw euh, dee wax ma nouvelle bu neex bi c'est normal que ma nekk fii yaayam dëgg loolu dëgg la mu woo ma wax ma ne que dañ koy takk feddali coloré et c'est comme ça à part à part euh, yu baax nga ñu mën a wax à ah Dieyla maa ko yar Dieyla bi muy ñëw ci man elle avait quoi elle avait onze ans moom ak ñoom Aïcha ñoo bokkoon édition donc euh, mu nekk xale bu yar aussi am lu mu lu mu indi si seen petit mhm. am aussi lu mu fa jëlee te loolu li mu fa jëlee aussi moom lay wéyee moom moo tax yàlla defal ko sutura tey jii voilà elle est toute comme ça ah. ah tey bés bu rëy la quand même xama ñu toog toog ba ñuy mayee sama njaboot yi loolu sori na ci man torop torop sori na ci man ban conseil nga koy jox ah, sëy day mi ngi noonu rek xam nga sëy moom bu ànd ak mbëggeel te naa ne bëgg na àllaaji bi dëgg ah. këram aussi xam naa ko nekk ku ku tey ku ma ku ma ku am taxawaay sama sama doom la aussi mm-hmm. ah, donc di ko ñaanal sëy bu am bànneex bu bare bare baxe mu muñ aussi ku góor ki aussi mu muñ ñu am si njaboot ju barkeel kontaan naa trop tey lu rëy la lu rëy la sama rëy la ça m'a mm-hmm. ça m'a permis aujourd'hui vraiment de mm-hmm. de mel ni dama nekk ci deux xew bu ndaxte ak ak ak bu moom euh, parce que soreyaatul donc euh, vraiment ma ko yàlla bu ko yàlla dog waaw sama yaay la mu nekk nit ku baax comme ni mu ko waxee rek bokkoon naa seen petit gàlle et que ñu tett ñu ci musique tey jii ku ne Dieyla seen petit gàlla nga ko njëkk a xamee mu hmm. nekk tamit nit ku baax def ci ñun ay qualité yu hmm. dëgër yu wóor wax dëgg neex yàlla hmm. nit koo xam ne ni mu def ay doomam ni mu ñu def sax moo raw wax dëgg neex yàlla defee leen nii waxee leen nii lu mu am daf may woo jay laa defee nii boole ma ci yëfam donc man tamit dama koy ñaanal yàlla gën a dëgëral taxawaay bàyyi ko su suñu kanam bañ koy tuddee doom incha allah mais ndaxte si ndaxte laa ñëw ndaxte xanaa la 2STV moom nag euh, doon animateur boo xam bi la fekk ay magam mais fexe na ba ñëpp ndaw la ko ci kenn dootu la laaj ci diggante ak Dieyna mais tànk yi bëggoon nañ xam lu waral nga teew fi frère. waaw mais tout comme tout le monde rek xam nga jéema mu comme ni nga ne image rek image boobu mooy reflété ci kanamu ñëpp te bu ngeen bàyyee seen ay yitte yëpp ku ne xam na dimanche ni mu mel ngeen waroon toog seen kër. jàpp jàpp seen njàmbur mais amaana am na image boo xamante ni reflété na ko ci kanamu doomu aadama yëpp moo tax ñun teew fi moom nag da di sama jigéen ñu yàgg lool depuis seen petit mu nekkoon xale ma nekk xale ñu daan ànd euh, numéro bi ma koy yor bu léegi mu doonoon lu yàgg boobu mu ne ndaw ma nekk ndaw nekk ci aar bi comme tout le monde di xoslu mu ji ñafe booba taa sax ndeysaan bi ñuy lool lool lool image dax seen petit nekkoon ma daan jàng di léegi xamante ak ñoom ñoom ñëpp laa xamante ni ñoom moo tax ku ci xewle ku ne rek dama naan sama sama frère wala sama sœur moo xewle li yoo tax ma teew ci bés bi tey. alors mu doon milieu bu a nekk jigéen ñi di ci sëy bëriwul ñu si ñu si dëgër la lool seen si waaw moom dama naan ko mu sant yàlla sant yàlla bi mooy xam nga ànd balaa yàgg balaa dëgg faw mu yàgg. te kii mu nekkal nii daa yàgg ak moom kii moo defar Dieyla tey lu Dieyla génne ci produit ci loxoom la jaar defe naa ni kenn mënu koo wax kan mooy Dieyla euh, te bu mbëggeel bu suuxatee ngeen ànd ci ànd bu sincère muy metti muy naqadi ngeen ànd ko muñ ko defe naa ne foofu bu fa sëy duggee rek effort boo ci def rek nga ci génn jigéen la joo xam ne yaru na waaye am na jëkkër ju yaru itam jëkkër ju dul yëkkati làmmiñ jëkkër joo xam ne baatam doo ko dégg moom it jëy laa noonu la mel da leen di ñaanal yàlla lafal leen cat ñaanal leen yàlla itam ñu sàmm leen ba ndiig li nga xamante ni ñoom bëgg nañ ko ci seen sëy bi rek suñu borom moo tale ko ci émission talk show 2021 yaa ko jëloon 2022 nga dàbbaliwaat fas yi jëlaat ko lan mooy astuce yi du ma ne sax secret bi parce que secret bi liggéey la hmm. lan mooy yeneen état bi wala lan mooy yeneen ambition yi fësa waaw dañuy sant yàlla rek xam nga ñun ñi ñëpp ay ndaw lañ te xëy na amaana ndaw ñi ñoo ñu bëgg bu ñu ndaw ñu bëggee rek loolu la nit ñi di gis ba ñuy fal wala di ñu nommer a chaque fois ñu lay jox ci raay wala di ñu boole ci li nga xamante ni moom moo di nomination yi fi am loolu dañ koy santee yàlla rek te di wax sénégalais yi xaaj xaajaata bu ñu commencé parce que xam naa man sama mbébét ci animation sénégalaise xam naa aussi sama mbébét ci fi ma bëgg a sama tànk kon nag ñu ngi ci yoon bi di doxal ñaan yàlla mu sàmm rek sàmm leen sàmm képp kuy ndaw ndax xam naa ne bu ñu yokkee doole rek ci kàttanu yàlla yàlla dinañ defal tawfeex ci li nga ne ci laa nekkoon seen buzz voilà ma yàgg ci lool def naa ci plus de un naa mm-hmm. donc musuma ko xeeb mm-hmm. kon ci liggéey bi ngeen ne yàlla na ci suñu borom defal leen ci sutura itam ndax euh, nit ku nekk rek booy dem da ngay tàmbalee ci benn ndax wañu boo gis benn la tàmbalee maa ngi leen ci ñaanal yàlla aussi tawfeex bu baax a baax a baax ndax nii laa ko daan defee dugg ceeg gars yi waxtaan ak gars yi ba suñu borom ubbi porte yi te ñu ngi koy ñaanal yéen tamit bu baax. macha allah wake up lu bees. wuruguma <laughs> takk de man <laughs> man moom moom ñëw ñëwagu leen ma de pare dafa am yu bare yoo xam ni dafa bokk samay projet te doxaguma ko quoi. mariage day xaar quoi. waaw mariage day xaar tuuti xëy na bu ci bu ci yàlla defee ndam rek ñu ñu takk incha allah ah. artiste bu ndaw toll nii di màgg sëy quoi. c'est très rare. waaw c'est très rare de voir ça mais ça dépend ci ci ci nit ki ngay dugg xam nga Dieng du ma ni benn artiste bu dugg ci koo xamante ni peut-être nekkul ci li nga nekk mais Dieng dafa am chance parce que sa manager. nekk sa jëkkër defe naa ne loolu ndam kase la te loolu moom dina ko indil lu bare bare bare bare ci kanam ndax manager bi ko gën a bëgg carrière moo bu jëkkër ji sax laay léegi jëkkër ji gën a bëgg carrière bi ndax moo ci nekkoon démb ak bërki démb defe naa ne dina ci am sutura yàlla rek bu leen cat dugg ndax cat dafa sew te la xaj Wake Up moom mooy lu bees li nga nar a def à na ko ko doon def di Fata lan moo nar a doon différence entre Kheucha ak Fata lan ngay indi lu bees lu xëc lu Tapha indi les noms sont différents différent on est on euh, Saint-Louisiens tous les deux mu doon benn rappeur donc Kheucha di animateur moom rappeur animateur la man ci domaine boobu laay yëngu mu yoroon ci style boo xamante ni ku ne gis na niveau bi fu mu ko ajoon man itam ma indi ci sama quelques astuces rek yokkuma temps bi mais dama cay yokk astuces yoo xam ni peut-être ça va être un petit peu rigoureux et commencé nañ ko tey euh, ak moom tey rek wake up nañu xam ne man bi ma ko wake bu ma ko muuree bàyyi naa muri artiste waaw <laughs> ah, ndax la ma gis noonu bu ma ko wanee ci image yi ngeen di ma bàyyi muri bàyyi naa muuri en tout cas daal boo xam ni ça va plaire aux gens bi ubbeeku for naa ci yooyu ba yaa ngi waaj non je crois pas que dinaa mës a quitter 2 pour dem ci beneen télé sénégalaise non attends attends je pèse bien mes mots pour dem ci beneen télé sénégalaise je dis bien man je vise loin travailler dans dans Canal Plus ou C8 parce que mon ambition depuis très jeune. mais actuellement nii yeneen télé yi bu bu joxe woon Kheucha. je resterai à la 2STV je suis bien macha allah. kontaan nañ frère. kontaan naa ma tam jaajëf kontaan naa. ndax nee naan boo bëggee jabar xool ci kii yaayam sëy nga xool te jaral la des te sëy ba jeex ak sëñ Tuubaa mat ko doon ko waxaat. est-ce que nekkul tamit finalement bi coow bi amee loolu moo tax ñu profité mariage bi. déedéet taxul ñu profité mariage bi de xam nga ñu tolloon dérangé wuñu ñu ko tolloon. ñu profité ko moo tax wala dañuy wax lu waxi bëgg waaye bu bëggee ñu may ko ñu profité woon tële coono suñu yoon nit laa wax ñu ko suñu yaram faale wuñ ko bokkuñu ko xëy na la ñu wax tey coono suñu yoon nekku ci lijjantiwuñ leen sax xamuñu leen xamuñu ñu ñu ñu déggee ñun sax gis nañ leen tey nii. bu problème bi amul woon kenn du xam diggante ak ménagère waaw ménagère bëggante wut ak moom gi heure bi la ko bëgg gi tam ñu may ko ko bëgg ñee lañ ko ko may ñun lu baax duñ ko xaar lu baax duñ ko xaar yaas ak yàlla génn ñu yaas ak yàlla am di liggéey dañoo dem ba léegi ñu waxtaan ñu xam na yaas bëgg naa am jabar deela war naa mën am sëy parce que boo nekk ci aar bi da war am borom kër bu la soutenir kenn tool bi la topp moo tax ñu def sëy bi waaw Jalle sëy bi dina ko sëy ndax rakkam rakk rakkaata mi ngi sëy Jalle rakkam rakkaata mi ngi sëy sama caat moo ngi sëy lu baax la fay def di ko wax tànkaan ak Jalle ñu sëy lañ xam nga ñu ba jeex. ñun duñ def loolu ñooñu sëy tas dañoo xamul sëy xamuñu sëy ñun dañoo xam sëy ba jeex ñun fu ñu ko ba def sama doom ñoo bokk ndey ak baay caat ba taw ñoo bokk ndey ak baay fii dee doon sëy si atoon sëy ba léegi tey génn ma kër kon jël day sëy ba jeex ñu xam ñu sëy tas sëy tas da nga koy doon wala nga nàmp ko te doonu ko nàmp ko xamu ko kon bu sëy tas waaw ñu gis ne ñu gis ne célébrité yu bëri bu ñuy marié dañuy dégg ñu ne may nañ ko temps may nañ ko oto may nañ ko ay millions ñu siwal ko ci réseaux sociaux waaw mais ñu gis ne Dieyla ba tey kenn xamul lan la ko jëkkëram dox ñun ñun jëkkëram mayoon ko ko alal daf ñu bëgg na ñu may ko defar yaas yaa ngi def suñu def ci jay la suñu ko compté moo may yaa ngi def jay la rëy suñu def ci jay la kenn xamul nu mu toll mënuñu koo lim. bu ñu gisee ni ngay waxee si yaasa. waaw ko xër ci moom. dama ci xër. dama ci xër maa ngi gën a bëgg sa jay la. aw ma ci moom sax suñu tudd yaasa damay lox. parce que suñu tubaab màgg. jërëjëf maman ñu ngi lay ndokkeel si bés bi. waaw di la félicité. waaw merci. jaajëf. waaw mais am am mbégte ah contentement bu rëy puisque ku am sa ku nekk da koy ñaanal moom bés bu rafet bu mel nii donc Dieyla mun naa ne ñun ñoo ko yar suñu xarit la suñu doom la te yàlla def na ko suñu soxna macha allah amuñu lu ñu mun wax lu dul kontaan ak yàlla ñaanal ko vraiment moom sëy bu barkeel njaboot bu barkeel macha allah yàlla boole ko borom këram lépp dans la jàmm waaye gérer seen carrière ba pare bon lépp lépp live la nekk nekk nekk soxna di sëy terewul a liggéey musique bi liggéey la donc dafa mel ne femme bi yor bureau di liggéey donc secretaire bi wala keneen ku mu mën a nekk nekk ci beneen ci beneen domaine et yàlla dimbali nañu ba ki muy ki muy sëyal moom mooy manager am tey ginnaaw yàlla moom moo indi andi fii mu yegsi ci carrière donc loolu dañu ci am xel bu dal je pense que ni loolu sax bokk na ci li ko gën a mën a gunge ci carrière am alhamdulilah sant di leen ñaan yàlla musal leen ci seytaan ak ay ñoñam yàlla bàyyi leen vraiment ñu sey sey bu barkeel sey bu rafet côté carrière amu ci problème liggéey rek moom moo solo góorgóorlu rek góorgóorlu comme li may wax sama sister yi comme tous les jigéen don yaa sama frère la je le xam naa ban cofeel la am ci Dieyla côté boobu dañuy tëdd nelaw quoi donc am problème góorgóorlu stay sayam continuer liggéey liggéeyam ça va aller incha yes yes da koy protéger parce que ngay sëy ak koo xamante ne tey moom ngay liggéeyal dina ko mën a dimbali ci di ko comprendre ménageur di ko comprendre moom aussi mu comprendre ménageur am donc lu ñuy rafetlu la vraiment di euh, wax ci micro bi. nga gisee milieu showbiz waa xam nga euh, sëy yàllaa koy tudd. tas tamit yàlla moo koy tudd mais ñoom dañuy am njort rek njot nañu am ci ñoom njort bu rafet euh, benn sëy neexul waxoon naa ko sànq mooy na euh, te ñu jàppalante man daal li may ñaan mooy na góor ki euh, jàppale ki nga xamante ne moom mooy Dieyla Dieyla tamit jàppale ki nga xamante ne moom mooy borom këram mais benn benn benn benn sëy neexul sëy yi nga xamante ne ñu ngi ñi ngi tasak ñii ngi def yéeg ñii ngi def yéeg je pense que xëy na dafa jot rek nit nit doo doo échappé sa app quoi sa sa app donc nag moom am nañ ci moom ñoom njort njort bu rafet quoi. c'est bon ah jaajëf. maa ngi leen di nuyu maa ngi nuyu ñëpp alors Dieyla sama rakk la tey moom maa ngi lay dem bësëm bi ma ñëw ndax sama rakk la ma ñëw teewal ko. donc ma koy félicité bu baax nga xale bu baax nga xale bu yaru la. wàcceel ko ah, ñaanal sa moom yaru na. Mm. am na ko yàlla may musicalement tamit sa euh, sa xel dal na si moom. ndax yaakaar naa ne ménage la macha allah sama rakk la man man maay magalem tey. tey man la magal a xewam. Mhm. Mhm, mhm, kon yaakaar naa ni seen relation mooy tey yow la magalee. man la magale xew. ayca mi ngi doon gars yi ak man ngeen bàyyi ñu yeggali di PCA bi. gannaaw nañ ñu yeggali PCA waaw waaw C'est parti, hein Bienvenue de vous. Si vous avez des questions. Yàlla ñu may nuyu. waaw naka nga dundee tey sa bésu mariage bi tey. waaw kontaan rek kontaan dellu di sant yàlla ndax li laa doon yàgg ñëw. mais da ngaa nax nit ñi de parce que fi ñu la seen fi nga fa sa jëkkër sa jëkkër. waaw parce que sa sa manager mooy sa mari n'est-ce pas mais mosuma ko mosuma ko bàyyi ci gannaaw ñu am coow loo xam ne déggoon nañ ko ci yow yaa kan est-ce que mën nga tey sama bés la d'accord mais elle est libre waaw léegi waaw di kontaan ci moom di ko ñaanal yàlla li mu bëgg moom moo xam yàlla bu ko yàlla defal ni ko yàlla bàyyi ma ak moom mu juróom ko njaboot bu barkeel parce que tamit nit bu baax la moom xam na man xam naa ñu sës ci man ñëpp xam nañ di kontaan ci moom bu wér. gis nañ sa papa nga fii sa yaay nga fii sa sœur waaw kontaan pour wax dëgg damaa kontaan trop trop trop trop parce que dara dàqul ci àdduna ngay ñaan dara tey jii ba yàlla defal la loolu li nga yàgg a rêvé loolu sant yàlla la ak mbégte kontaan moom bu rëy laa ci àndal dañoo laaj sa papa sànq da ngaa fonk waajur loo wax rek mu laa def naan sama papa sama yaay lan nga waaw man am man sama papa ak sama yaay mën naa ne tey Dieyla fu mu yegg ñoom la ñoom ñoo may ñaanal ku gis rek da ngay xam ne Dieyla mii gis rek mais am lu samay waajur waaw donc lépp lu mu lu leen mën a bëggal rek dama ciy dox. gis nañ artistes yu bëri gis nañ artistes yu bëri suñuy marié. fi ñu dëkk sax duñ fa dem dañuy dem côté Almadies wala côté Ouest Foire ñu gis na yow fii nga màggee te ku nekk nit am màggee foofu la safee lan ngay wax ci ñoom tax mais fii laa am nit doo doo loo loo loo rëy rëy gën a rëy fi nga juddoo waaw su ma juumu loolu lañ koy waxee donc man amul lu dul géejawaay la Dieyla ñu gis ne nag nit ku dal la problème bi mu bëri bëri coow loolu dama ciy sant yàlla di ko sant sama ñaari waajur parce que Dieyla nu mu mel ba nit ñi di ko bëgg ñoom ñoo ma ko yaree donc loolu ci ñoom la ñoom ñoo ma yaree noonu waaw ni nga dalee ba doo ba doo benn problème di gis ne am ba Dieyla gis wax lu négatif génn wax lu négatif ak coow lu mu rëy rëy waaw gis nga man man xamuma lu ñaaw waaw bu rafet rek laa xam parce que aduna dafa war a rafet. na wàcc na wàcc. <laughs> merci. loolu ñu mën a wax sa xam nañ ne fi mu ne nii comme sa manager mooy sa mari. Mhm. te mari naturellement dañu wax mooy manager euh, euh, jabaram même bu fekkee nekkul manager officiel yow nag sa jëkkër mooy sa mari parce que conseil yu bëri mhm. ci moom lay jëlee naka nga dundee compatibilité compatibilité bi. waaw dina gën a neex dina gën a yëngu incha allah waaw. kon looy wax fan si lu mën a xaar. waaw lay xaar bu yàgg dara dina ñëw mayaat leen benn affaire bu doy waar. mooy loolu. ci décembre ci lay doon décembre bii lay doon mu doy la yàlla mu jig la. jërë ngeen jëf. waaw di ko wax que ni ni ma ko nobee def ko. waaw. Hmm. est ko génneel sama bopp. yéen xanaa seetloo leen dara. samay muy defee ni muy ni muy génnee nit di ko parce que ci xol xol moo koy bind xol way ko muy demee ci xol nii la mën a demee. mais Dieyla. li mu la secret bi feeñ na tey leer na tey waaw waaw. li mooy secret confidence boo ñu mën a wax. yaa sa diggante la yàgg na. yàlla moo ñu boole eka yàgg na ñu koy dund amaana tey la yàlla dogal sëy bi. waaw lu yàgg la lu dëgg la moo tax tey yàlla def na ko macha allah. ñu merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin arrahmaani rahiim maaliki yawmi diin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdina siraatal mustaqiim siraatal wa lad-daalliin amiin maa ngi leen di sant leen jox seen wàccuwaay xam ne ah, li ngeen def itam lu rafet la lu baax la waaye eh, li may wax rek mooy Dieyla ah, ah, man maa ko jur ci fatu yàlla sunnas Muhammad ah musuma def dara loo xam ne lu ma naqari wala lu ma metti la waaw nit ku baax la nit ku am jom la nit ku am ful la nit ku am fayda te gëm li muy def te jaylaakat ah, heure boo waxee lu muy wax rek man sama yaay sama papa rek ka ma ñor yàlla may ma dund ba ba tekki rek ba ngeen noppalu ba doot da lépp wàcc leen moom loolu rek mooy waxam lu mu nekkee xale ba léegi ma di ko ñaanal sama borom gudd fan ak wér-gu-yaram di ko ñaanal fu mu bëggee yàlla sama borom ko ci barke alxuraanu karim lépp lu mu namm ci waajur yéene ko waajuram sama borom ko ci barke Seydina Mohamed jay laa ah, def dara lu ma metti def lu ma naqari déedéet bëgg ma bëgg yaayam waaw ah, wax ne itam ah, yaayam kenn gënu ko néew moom moo gën jigéen ñëpp waaye jigéen gënu ko yaay ju baax la yor billaahi wallaahi wa taala yaay ju baax la Dieyla yor kon Dieyla fu bëgg yegg ma di ko ñaanal rek yàlla sa yeggale lu mu namm ci waajuram sa borom matale ko ci barkal Qur'aanu Karim gudd fan ak wér yaram rek laa koy ñaanal kenn gënu ko de wax dëgg yàlla man day ba ma ko yoree ba léegi musuma loo metti ci lu ma naqari ci moom déedéet xanaa yaay papa man day lu ma fu ma toll ba ba ba ba ngeen noppalu rek la moo ma ñor dara ñoruma lu may loolu sama yaay sama papa rek waaw am benn bis boo xam ne fu mu man di toole itam mu ko gisul itam fu mu toole mu ngi jokkoo ak man papa yaa ngi ci jàmm ah lu mu am andil ma wallaahi waaw papa loo bëgg ah papa man loo bëgg rek laa bëgg waaw deema ñaanal yàlla ma ne ko géej joor maa ngi lay ñaanal ah di nga gudd fan di nga barkeel di nga yokk ba tonni jumaay Tuuba ci barke Cheikhul Khadim ci Sëñ Fallou Mbacké jaay lii laa am lu may wax ci moom mënuma koo fay wax dëgg yàlla ma waaw que li yi ma koy dénk mooy ah, mooy jigéen moom boo duggee ci néegu sëy na nga jëfee ndigal bàyyi tere parce que ki mu nekkal itam ku baax la wax dëgg yàlla am ku baax la ah, jàppale na jay laa jay laa ginnaaw yàlla ak yonent bi ak ñaari waajuram dèjà fu mu egg ah, yaas moo ko feegalee wax dëgg yàlla am di ko ñaanal rek gudd fan ak wér gu yaram na fonk borom këram daal parce que loolu rek mooy sëy nit ki daal boo dee sëy del jëfe sa ndigal borom kër di bàyyi ay tereem na ne sa jëkkër nay sa xarit waaw sa borom kër sa xarit waaw sa àndandoo waaw loolu de defee. te dana ko def itam parce yaayam royuwaay la yaayam ji royuwaay la te bu royee ci foofu rek lu mu bëgg am insha allahu rabbi ak fu mu bëgg yegg billaahi wallaahi wa dina fa lu mu dina ko am ci barke Seydina li ma koy wax rek mooy na gudd rek waaw gudd fante rek bu guddee lépp nga ñëw waaw que fi mu taxaw la fi mu teg la dafa bëgg ay waajuram jël dafa bëgg ay waajuram dafa bëgg ay waajuram loo wax ma ne sama yaay sama pap ñooñu rek ñoo ma ñor kon nag li ci des moom ah, di leen ñaanal rek yéen itam leen jox seen wàccuwaay waaw fu ngeen bëggee ak yéen ak seen liggéey sans borom barkeel ko ngeen gudd fante wér waaw lu ngeen bëgg am yéen itam sans borom xéewale leen ko xéewlu saawaan baawaan ci barke Seydina Mohamed waaw waaw waaw liggéey bi daanaka su ma yeboon ne rek waaw bi mu nekkee ak moom yaakaar naa ne mi ngi bëgg a diire te mi ngi koy jàppale ci côté bu ne waaw yaa sa nga jàppale ci côté bu ne wax dëgg yàlla am kon loolu daanaka jërul sori sax parce que ñun gis nañ fi mu fare fi ko yaas fare waaw ginnaaw yàlla ak yonent ba ñaari waajuram yi gis nañ fi ko yaas fare yaa sa koy jàppale bu baax li ma koy wax kay néegu sëy boo ci duggee rek mooy li nga wax léegi boo ci rek na nga gëm sa sa boroom kër muy sa xarit di sa àndandoo ah lépp looy def tàggu booy dem tàggu bu la nee demal demal boo bu la nee toogal toogal waaw sa kilifa heure boo koy tàggu rek ah yaakaar naa ne du ngeen am benn kii waaw seen lépp day day day daal di kii bala ngaa jóg rek. ne ko ah, man ka damaa bëgg dem nanga wala bëgg a def nanga nanga bu la nee defal nga bu la nee bàyyil nga bàyyi jëfee ndigal rek bàyyi tere bark sëñ Fallou waaw loolu daal la am looy wax ci jay na dina gudd fan nag dina barkeel waaw fu mu bëggee gëdi sama borom dina ko feegale billaahi insha allahu rabbi bu neex yàlla ak yonent bi lu mu bëgg jayal lu mu bëgg dina ko am parce que fi mu teg tànkam la bëgg nay waajuram loo wax mu ne sama yaay sama papa sama yaay sama papa ñooñu rek ñoo ma ñor kenn ñoruma sama rek te ba pare ne ko ko jëfee waaw bi muy xale bu tuuti ba léegi mu di ko jëfe waaw bi muy xale tuut tànk ba léegi loolu day jëfe bi muy toll ci ay douze sant treize cent yooyu ba léegi mu mu di ko wax ba pare boole nag di ko jëfe nag waaw kon nag kooku moom man <laughs> yaakaar naa ne amu amu amu lu may tiit ci jay la déedéet. papa gis ni jay la. ci li nga xam ne waaw amoon na tey jii ba ngeen xam ne moo kooku nag moom wax dëgg yàlla ah, sama kii du sori moom kooku moom wax dëgg yàlla am mbir mënu caa sori waaw parce que loolu moom xawma ca dara lii daal man li ma ñor mooy sama diggante ak sama doom ah, ak liggéey bi mu nekk nii ak ki mu nekkal nii waaye diggante ak problème ak ñeneen moom wax dëgg yàlla am kooku moom awma ci kii dëgg yàlla am aw ma ci lu ma cee wax waaw waaw waaw waaw. jërëjëf na waaw waaw. <laughs>